aousubillahi min alsheytaani irajim bismillahi irrahmani irahim alhamdulilahi rabilalamin wasalaatu wasalaam ala asrafi al anbiyai walmursalin sayidina wa maolana muhammadin il makin wa ala alihi wa sahbihi sawi ridwani wa tamkin mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki téléspectateurs yi nga xam ne ñoo jàkkaarloo ak euh, seen site Assalaamy TV noo ngi amaat mbégte di amaat ak yéen ci jataay bii nga xamante ni bii jataayu fàttaliku la waaye di jataayu sant yàlla ak nafaraat lenn ci dunduk murit saadix bu fi nekkoon di alxaaji Babacar Kebe Njuga mbokk yi le 13 mars 1984 euh, le 13 mars 2021 alxaaji Babacar Kebe Njuga doonoon murit saadix boo xam ne jëfi murid saadix jëf na ko ci biir ëtti Serigne Touba yi waaye doonoon sénégalais boo xam ne servir na am réewam loo xamante ne bii ba fii ñuy tollu histoire net léegut euh, benn sénégalais wala benn nitu réew boo xam ne servir nga ci zaaxir lu toll ne li mu servir am réewam ñu toog nag tey ak. kenn ci njabootu Cheikhul Khadim gi di nekk ci ëtt boo xam ne it El Hadj Babacar Kébé am na fi wàccuwaay di Serigne Cheikh Abdou Lahad moom Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde faatma euh, moom soxna Bali moom soxna may Maymuna moom Serigne Touba Khadim Rasoul euh, kon ñu fas yéene ànd ak mbokk yi ginnaaw bu ñu siyaaree njabootu El Hadj Babacar Kébé Ndiouga gépp tàmbalee ko ci Serigne Ousmane Kébé mi nga xam ne mooy seen wayjur waaye jaar ci sëriñ Basiiru Kebe mi nga xam ne mooy seen kilifa mm, jaar nag ci sunu bunt ci seen kër di soxna moomi Kebe di borom cër ci ëtt bi ci ëtt bi ñu nekk euh, sëriñ Cheikh ñu nuyu la ginnaaw buñ la nuyoo rek ñu fas yéene taataan ci yow ay kàddu euh, en tant que bokk ci njabootu sëñ Tuubaa gi waaye en tant que it om boo xam ne bokk na ci am réewam diggante El Hadj Babacar Kébé ci dimension bi nga xam ne doon na ko incarné ci jamono ji de Mouride Sadikh waaye nag di intellectuel boo xamante ne bii sëñ dongab daara la boo xam ne fexe na ba réew yu mag yëpp bàyyi ko xel ci jëfam ak aw doxinam ak waxam. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu jërëjëf Serigne Fallou daanaka mën naa ne sax li solo ci wax ji wax nga ko pare ndax indi kan mooy euh, El Hadj Babacar di Ndiouga ndax euh, li nga wax. ne dafa am cër ci sëriñ bi doxal ko ba mat sëkk am itam cër ci réew mi doxal ko ba mat sëkk loolu lañuy wax un homme multidimensionnel koo xam ne day làmboo fànn yu bare bare bari yoo xam ne ku ca nekk rek daanaka ba ci jamoon doy na sëkk nga ne kii kat jàmbaar la bu ñu bu ñu dikkee ci ci sëriñ bi foog naa ne murid saadix lañ ko daan dàkkantale loolu nga xam ne man mën naa ne ñëpp nanguloo nañ ko ko njabootu Serigne Touba gi mu fi fekkoon ñoom itam ñu nanguloon ko loolu mu nekkoon loxol nekkoon seen loxol ndajar liggéeyu Serigne bi itam kenn mënu ko ci woon te loolu foog naa ne jumaa ji doone ci firnde li nga xam ne def na ko jumaay Touba ji ba nëgën ni eh, foog naa ne mën su faa def loo xam ne moo koy gën a valeur kon foog naa ne loolu muy muy làmp yam fa defoo nag yu mel noonu tey ji mënuñu am loo xamante ni moo ëpp loolu nga xam ne moom la moom la fa demoon te loolu jamono jam koy def boobu yàgg na yàgg na lool ndax da ko defoon yéene te boobu suñu borom joxoon na ko joxoon na ko kattan gu sëkk mu def ko rek ngir yàlla ak jëmmi Serigne Touba ki nigalul Cheikh Abdoul mi nga xamante ne bii am na fu mu ko féete woon am ci dëkk bi boppam itam kenn ku ne xam li ñuy wax talib njuga kebe bi moom ci sow ba dégg nga forage njuga kebe dégg nga ñu naan la palais njuga kebe am ay kër yu bare bare bare ci biir dëkk bi loolu lépp mu def ko ngir participer ci li nga xamante ne bi mooy développement Touba ndax développement Touba bi ko sëñ mi ñaanee ba noppi dafa tabax nit ñoo xam ne ñoom ñoo ñëw jëmmal loola loolu nag moo amoon na ca euh, cër cër boobu itam doon na ko doxal anam gu rafet nekkoon ko jàppale njabootu sëriñ Touba gi muy doomi sëriñ Touba muy setti Serigne Touba yi muy ci kër rakki sëriñ Touba yi eh, kenn ku ne gis na li nga xam ne daan na ko jëflante ak ñoom ci ci ay teraanga loolu lépp rek ngir jëmmi ngir jëmmi Serigne bi ak taxawu ak taxawu njaboot gi loolu itam foog naa ne kenn ku ne teg nga ci teg nga ci sa day jékki-jékki rek wàccee douzaine ci ci Mercedes ñëw joxe ko àddee ci ci dëkk bi. loolu foog naa ne euh, gëwuma nit njëkk na ko fee def kon liggéey na liggéey bu rëy rëy rëy liggéeyal ko liggéeyal ko Serigne Touba euh, dinaa ci nettali rek benn xisa boo xamante ne bii Serigne Mouhamed Mbacké moom ko nettali suñ Mbacké soxna Lo boo fàttalikoo moom ñoom la Serigne Abdou Lahad boole woon ñu demoon euh, Guinée ca président Sékou Touré sëñ bi dañu mos waxtaan bis mu ne ma dey am na loo xam ne ñàkk nañu ko te dinañ ko yéex amaat ma ne ko lu mu doon mu ne ma Ndiouga Kébé de ak Cheikhou ture bu ñu bokkoon dund fi amoon nañ yéen ci dëkk bi yéen yoo xamante ne bii Touba benn capital ci monde bi noru ko woon a gën a développé. yaa ne kon xañ na loolu sunu borom te te te moom danaa waxtaan ak moom ndax day mbokk mi tam euh, su ma juumut foog naa ñoo bokk néegum ndey Eh, lii sëñ sëñ Mouhamed Mbacke moom ko moom ko wax booba ca gannaaw buñ jógee ca voyage bañ demoon Guinée ci Seexu Ture ba ñibbisi ñu nelaw ay at yu baree bare bare bis ñuy waxtaan mu mu nettali ma loolu mu ne ñoom ñaar amoon nañ ci dëkk bi yéen ñoo xam ne buñ maasee woon dund doxal ko Touba benn benn capital bu gën ci àdduna si kon nga xam ne kon yéen ji rëyoon na te sëñ Blaat moom itam ca xarañ nga la taxoon mu mu yabal ko foofa boole ak président Seexu Ture booba xam na ne am na loo xamante ne bii mënoon nañ koo indil eh, Touba. man ko indil man ko indi Sénégal kon kooku taxawaayam day taxawaay bu rëy rëy te lépp lu mu def rek Serigne Touba lay jiital ak njabootu Serigne Touba gi eh, bu dee ci wàllu réew mi moom itam foog naa ne gëw ma ne mos naa am sénégalais bu investir lu day ni li mu investir ci biir Sénégal du ma ne amul waaye man xaw ma ko euh, créer des milliers des milliers des milliers d'emplois créer ay entreprise yu bare bare bare bare bëri fenn fu nekk ay doomu Sénégal yi di fa di fa xëy di fa gontu di fa di fa suturlu entreprise yooyu bu nëgë ni mi ngi mi ngi dox dem sax ba àgg ci créer banque di développement boo xam ne day day dimbali ñi nga xam ne ñooy homme d'affaires yi am ay projet bëgg ay financement te xañ na seen loxo du jot seen ginnaaw bañ mën a finance lépp ñu dem ci banque ba mu lebe leen ñu ñu ñu liggéey Euh, bu day action ci ay barab yu bare bare bare bare kon foog naan loolu aussi buñ ko buñ ko jëlee ci wet googu li nga xam ne participer na ko ci développement économique gu Sénégal loolu aussi kenn xamut euh, nu mu toll ndax bari waa na koo xam ne dafay am xaalis waaye xaalis ba du ko investir ci biir réew mi da koy yóbbu feneen investir ko fa wala rek mu placer ko ci banque yi di di di jël ay ay ay ay intérêt di ko dundee waaye moom dana kat ndax parce que ndax mën ngaa investir boo tabaxee ab usine mën ngaa xëy xëy usine ba usine ba perte yu mel noonu risque yooyu ne am na ñoo xam ne duñ ko jël wala ñu ko jël rek tabax ko ci ay bâtiment à la fin du mois ñu fay ay ñu fay seen location waaye kenn du fa liggéey ndax bâtiment mën nga ci investir lu mat 7 milliards mais ña fa liggéey lépp lu mat juróomi nit moom nag weneen yoon la jëloon yoon boo xamante ne bii foog naa ne li nga xam ne dund nañ ci ci wërsëgam ci création emploi boobu moo doon def foog naa ne kenn xamut nu mu toll kon même action sax jéggi woon na Sénégal man nga ne sax Afrique ndax aussi am na ñu jaxasoo ay chef d'état ci ci ci Afrique di fa dem di leen xelal di di liggéey ak ñoom euh, kon man nga même homme d'affaires de dimension internationale la woon. kon loolu moo tax ba bi mu nelaweeg léegi foog naa lee mu lee mu yàgg ñeent fukki yi foog naa li ko manqué du bari ñett ko yor ñett ñett ko yor manqué waaye ba nëgën rek gis nga tur yi ni fi dese jëf ji aussi ni fi ni ak itam nit ñi ni ñu ko fonke ak itam taalibe yi cofeel gi am ci moom ak ni ñu rëy ci moom nga xam ne kon def lu baax rek mooy li mooy li am solo. wàllu social bi itam ku ku ci jàmbaar la woon ku ci jàmbaar la woon ndax nekk na ni koo xam ne ku daa ku daa dimbalee la ndax xam nga at yooyu boo fàttalikoo boobu la fa boobu la fi sécheresse bi di di sug dugg nawet yi commencé commencé manqué nit ñi di dafay ci àll bi di ñëw ci di ñëw ci taax yi. ak di ñëw fii ci Touba di fi dëkk si boo xoolee développement Touba ci ci ci ci dëkkin mu mel nii boobu la boobu la commencé eh, bu ma nee la da daan jënd oto yu bari di ko joxe loolu xam nga social la di jël ay ay ay ay junni junni junni tonni ceeb ñu koy def ci ay camion di ko sëddale guddi ñëw rek ci ay ci ay barab du ñu sax du sax xool kii kii kii la kii kii la day ñëw rek di wàcce ngir eh, jëmmi jëmmi yàlla. tabe gi aussi générosité bi ci wàllu yëkkati ah, xaalis jox ko nitam loolu foog naa ne moom jéggiwoon na dayoo kum kum may rek da ngay da ngay tiit donc loolu te loolu aussi lu yaatoo lu yaatoo yaatu yaatu yaat la woon même création entreprise yooyu mu doon def social la ci jublu ndax nit ki day day àgg foo xam ne euh, bu créer entreprise entreprise ba lam mu koy génneel bénéfice ci at mi wala sax day liggéey ba at mi jeex entreprise perte. waaye du ko tëj ndax bu fekkee téeméer nit ña nga fay liggéey moom téeméer nit yooyu lay lay xool kon day participer ci wàññi chomage bi nga xam ne moo nekk ci ci biir réew mi kon nekkoon na nitu sociale koo xamante ne bii eh, jéggoon na dayoo ndax social passé wut li nga am nga bokk ko ak saw saw askan eh, tasaare ko ba nga xamante ne bii maanaam kenn ku nekk rek bu amee ay jafe-jafe yu muy dund am nga yéene eh, am nga xolub génn ko ci jafe-jafe yooyu mu nekk gis nañu li nga xam ne taxawal na ko fi ci ay ci ay homme d'affaires yoo xam ne dem nañu ba ba réussir beneen bi nga xam ne aussi am na solo moo di li mu doon def ci ak njabootu boppam la ko tàmbalee woon mu ci ay bokki boppam lu jafe-jafe da gis ku bari la lool waaye euh, day da ngay gis ñu ko jege lool nekk sax ci ay jafe-jafe waaye boo gisee moom ñi ko jege woon ñëpp ci ci ci ak mbokk ku ci nekk jëloon na la dugal la ci dugal la ci biiram. responsabiliser la am am am fu la féeti te te loolu da dégg ñu ne kat bu ñu nit baax na da nga naan ndax mbokk yaa ko wax kon loolu aussi foog naa ne aspect bu am solo la eh, te te te loolu aussi lu lu mat di fàttali la nga xam ne kon li mu doon def daal lu matale woon la yëmale ko woon ci ay njabootu boppam yëmale ko woon ci bokki boppam yëmale ko woon ci ay ci ay sëriñam waaye ci mboolem doomu aadama yëpp ci la ci la doon jëf. ngir yàlla ak jëmmi sëriñ bi. waaw amoon na amoon na amoon taxawaay ndax am booba réew mi euh, melagut nii Sénégal fi nga xam ne fi la toll ci ci wàllu développement euh, tollu fa woon euh, ñi nga xam ne aussi ñoo bari woon am koom ci biir réew mi bari wutoon mu nekkoon ci wetu xalif général des des ñun ci liñ ci fekk xam ko rek lu ci ëpp mooy bi fi président Abdou Diouf toogee moo ci gën a not donte fekk na fa aussi euh, président Senghor hmm? maa ngi fàttaliku sax ngan gu rëy gi nga xamante ni moom la defaroon sëñ Blaat ca ca Ndakaaru loolu lépp rek nga xam ne mboolem yoonu murit ñoo déplacé fekk ko fa ñu ànd sax dem ba ca pale ba fekk fa Senghor kon xam loolu day wane ratax goo xamante ne bi diggante bi euh, euh, rataxoon na ko donc te booba dañoo nekkoon ci période ajustement structurel. FMI dugg fi da nga ko dégg banque mondiale dugg fi eh, comme mi néew ñu ñu ñu ñu am politique d'ajustement boo xamante ne bii état bi maanaam li muy def ci wàllu social eh, ñooñu dañ ko nekkat danga koy parce que attunoo ko danga wàññi attunoo ko maanaam doo jël doo jël ay nit ñu bees ñuy eh, ñuy liggéey looy subventionné ci ay produits da koy bàyyi parce que mënoo ko moom la ñuy woowee politique d'austérité lu mel noonu nag ku mel ne moom da doon baax ci état bi. ndax mën nañoo dem sax ba léeg-léeg weer wi dee duñu am sax lu ñu fay ay ay salaire moom mu jaar fa dimbali leen jàppale leen da ciy baax li nga xam ne aussi moom lay fay ci ci ay ci ay lempo loolu aussi dafay nekk loo xamante ne bii luy luy dimbale nguur gi euh, nguur gi lay doon li nga xam ne li nga xam ne aussi noonu la noon la jege woon kii di xalifa général des mourides ak itam position bi amoon day nekk espèce su euh, ci diggante nguur gi ak sëriñ bi ngir defar ngir lépp gën a gën a nooy ngir lépp gën a gën a baax te état dafa soxla ay hommes d'affaires yu dëgër yu ne ci biir réew mi ndax xam nga bu ñu nee bu ñu nee état warul état wurtu joxe emploi état wurtu joxe social état li ma war def rek moo di defar réew mi ba mu naat mais nit ñi nag ñoo war a jóg investir créer emploi di fay ay lemp di jël ay di jël ay nit. kon moom foofu la féete woon nguuru nguuru Sénégal di ko jàppale ci nit ñi nga xam ne nguur gi la ko waroon ci nit ñi te mënu ko moom wuutu ko ca loola ba nit ñi aussi coono bi nga xam ne waroon naa ak seen kaw moom lu ca bare bari dina ko dina ko wàññi rawatina ci temps nga xamante ne bi dañu nekkoon ci dañu nekkoon ay politique d'ajustement structurel yoo xamante ne bi tubaab yi ko imposé woon lu bare bari ñu aaye ko ñu aaye ko état bi ne ko ko def ne ceeb bi da ngay bàyyi rek prix yi amul droit di ko subvention di ki def sa xaalis diw gi amul droit di ko subvention di ki def sa xaalis gerte gi da nga ko jëndee prix bi nga ko war a jëndee waaye ko jëndee lu lu cher di ko jaay bitim réew loo xam ne moo gën a yomb di ci di ci perte donc loolu mooy politique d'ajustement ne ko aussi da ngay da ngay dàq yenn employé yi salaire da nga koy da nga koy bloqué nangam ak nangam li ngay def ci wàllu njàng mi aussi mënatoo ko da nga koy wàññi donc loolu mooy politique d'ajustement dafa dafa metti jaar nañ fa ah, bi bi président bi jot soo ko toog boobu nag ko mel ne moom Euh, moom bu bu fi nekkee yooyu yëpp da koy atténuer maanaam da koy da koy woyefal ndax taxawaayam ci biir réew mi taxawaayam ci nit taxawaayam ci ci njaboot gi. waaw xam nga nee naan léegi li mu doon li mu doon def yemunu ko ci njabootam yemunu ko ci ay ci ay bokkam yemunu ko ci ay sëriñam da ko tasaaroon ci Sénégal boo jëlee exemple boobu rek tey jii yoroon na doomi xalif général Ndiassane <laughs> loolu mooy exemple bi <laughs> donc loo loolu loolu mooy exemple bi ku mel ne si am na lu ñu seqoon xaritama woon noonu la noonu la meloon ak ak mbooleem kër diine yi fi yi fi nekk yëpp mais exemple bi ci gën a wér rek loolu moom lu ñu dund la donc mu yor doomi ab xale général beneen boo xam ne xalif général des des mourides ay sëtam nekk ci biir këram kon loolu day tegtale en tout cas relation yi nga xamante ne bi seqoon na ko ak ñoom ak relation yi ni mu ni mu ni mu xóote woon ak li nga xam ne tabax na ko ci ay ci ay juma feneen fu dul Tuuba loolu lépp ngir jëm yàlla ak euh, ak jàmm yàlla xam ne diine ji jenn la te Serigne Touba moom ñëpp la fi nekkal Serigne Touba ñëpp la jabooti ndax Serigne bi bu ñu buñ ko di xatal jàpp na rek li ñuy woyee ñun murit sëñ bi sax woyeewul loolu murit li ñuy woyee ñun murit rek ñooñu ñoo njaboot sëñ bi déedéet sëñ bi képp ku wax ashhadu an laa ilaaha illallah rek ci njabootam nga bokk kon képp ko xam dégg nga njàngalam sëriñ bi ki say jëf loolu doo ci am xejji doo ci doo ci am seen mérite na ko hmm, lu mérite ci réew mi euh, amut mérite na ko te foog naa loolu lu ñàkk ay ay ay waxtaan yoo xam ne warees na ko ci warees na ko ci def warees na ko ci def moom xaw ma wax am na lu ñu ko tudd ci réew mi xaw loolu mosuma ci eh, mosuma ci xalaat mais loolu lu jaadu la lu lu yell la li mu def ci diine ji tax na mu mérité ñu tudde ko dara loo xam ne day méngoo ak ak diine li nga xam ne aussi def na ko ci réew mi ci euh, ci ci ci wàllu ci ci wàllu commerce bi ci réew mi ci wàllu industrialisation ci biir réew mi ci wàllu mbay ci biir réew mi li nga xam ne na ko également état Sénégal ci wàllu njàng mi yu mel noonu aussi tey dafa dafa yell ñu jël dara tudde ko El Hadj Babacar Kébé di di njuga te loolu foog naa ne euh, kilifa yi euh, danañ ci danañ ci dox danañ ci wax te foog naa ne sunu borom mën na ci def sutura bañ amee ko ni nga xam noonu ñu ko bëggee woon. xanaa di euh, di la di leen sant rek di sant santam njabootu boppam gépp nag ndax ñoom itam fa mu tegoon tànkam. ci yar leen ca loole kamam même ca la ñu ca la ñu teg seen tànk ca loole la ñu la ñu gis nga rek daa waati jég lañ ñëw jël li mu doon tabax fii ci Touba jël ko àndandoo def ko addi Serigne Touba kon ñooñu foog naa ne moom ëpp leen yéene ci ci yoonu murit te lam leen yaroon ña nga ca kon ñoom itam maa ngi leen di nuyu di leen sant bu baax a baax ci seen ci seen taxawaay di leen ñaanal rek noonu li nga xam ne bàyyee na leen ko muy héritage eh, ci ci ci wàllu taalibe gi. mais ay aussi ci wàllu àdduna ci ci ci ci doxaliinu liggéey ak yi mu fi bàyyi woon yëpp suñu borom aussi kattanal leen ba ñu gën ko du yóbbu foo xam ne gën naa kawe fa nga xamante ne bii fa ko fa ko bàyyi woon. di wax itam ne mboolem ñi yëngu ci àdduna nañu roy ci ñoom xam ne euh, li ñuy li ñuy sàkku te Sëñ Tuubaa tuddee ko sàkku lew muy am koom euh, du du amul solo ci kaw na koo jël. jëfandikoo ko ci yoonu yàlla waaye am dajale rek amul njariñ e, dafa am sa benn mbokk di di suñu sëriñ ñëpp ndax moom jàngal alxuraan sëñ sëñ Moustapha Ndiogo sëñ Moustapha waxtaan bés mu ne ma Cheikh Abdou xanaa xamoo ne xaalis weccat lay gën a morom ja ndax bu fekkente ne bi yor nga xaalis boo yore tey rek masalan ñaari téeméer yow nga yor ñaari téeméer ñoo toll valeur waaye nag ñun ñaar buñ demee jënd bañ delloo ñu ci la ñuy xam ba xam sama ñetti téeméer moo gën su yos wala su yos moo gën sama yos ndax ñetti téeméer yi nga xam ne eh, dafa dem jënd ci ñaari kiloy ceeb jox ko jullit bu amul lu mu lekk mun a tolloo ko jël ñetti téeméeram dem ca fa ñuy jaayee lu lu daganut jënd fa ñu delloo ko kon nañu xam li tax ñuy sàkk lu lew loolu nañ ko def ngir taxawal lislaam ngir suuxat ko ngir lépp ñu dellowaat ko ci ci yoonu yàlla rawatina nag ñun bu dee ñu nag. ñu delluwaat ko nag Serigne Touba ci njabootam gi ak ci dëkkam bu tedd bii kon képp ku di taalibe rek na nga na ci loolu te loolu dafay jàppandal sa jàmm yàlla ndax la ngay lekk bu lawee jàmm yàlla ga cir da koy da koy jublu dafay dafa yomb loolu loolu waxi sëriñ bi la waaye tim boo koy jël ko ci lawaat day barkeel fa des a kus néew ba aussi sa njaboot loolee dafay baax ci ñoom te kon daal nañu xool ci loolu roy ci exemple yu yu day nii exemple ci jullit xaqan exemple ci taalibe waaye aussi exemple ci patriotisme ci bëgg réew gëm réew ndangu liggéey sam réew ndangu taxawal sam réew kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla def jàmm. Euh, jërëjëf euh, sëriñ Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaynde Fatma euh, ci kàddu yu am solo yi nga xam ne yëkkati na ko jëme ko ci seere ci murid saadix bi di dundug alaaji Babacar Kebe Ndiouga euh, di ko xamante ne bii euh, liggéeyal na yàlla liggéey bu rëy euh, dund juróom-ñaar fukki at ak ñaar génn àdduna ci atum 1984 ci le 13 euh, mars euh, te jii le 13 mars ñuy sàkk ci jullit yëpp ñu waat ko ay ñaan ndax euh, ñaan du doy ni ko sëriñ Tuubaa waxee ne ñaan dana jariñ ki ne ci bàmmeel nangam ak nangam ak ya ca aju lépp kon ñu ngi sàkkuwaat jullit yëpp fu waaye mën a toll te jotaay bii nga jàkkaarloo ak moom nga fàttalikuwaat ki ñaan ñi ngi santaat ñëpp nag di leen gërëm di balawaat ak ñëpp di leen baalaat ak di ñaanalaat bu baax a baax sëriñ Tuubaa Cheikh Mamadou Mountakha yàlla na fi yàgg doole ak wéram ñaanal ko njabootu sëñ tubaa gépp waaye feddaliwaat sunu wëllëre ci ajaratu eh, Momi Kébé ak sëriñam El Hadj Abdoulaye Tege di jaar baax sëriñ Cheikh Mbacke Kébé ak sëriñ Moustapha Kébé ak mboolem sëñ Mbaalo Kébé ak mboolem njabootu El Hadj Babacar Kébé njuga gépp yal na leen yàlla tabal ci biir liggéeyam bu rëy boobu nga xamante ne bii liggéeyal na ko lislaam wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu